ndax li taxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam def loolu mooy jàpp ne ay nafiq lañ ndax li tax ñu génnuñu tàggoowuñu waxuñu dara kon loolu mën naa nekk nafiq ak nifaq bi alquran wàccee nag ci biir loolu ci lañ door a xamee ne ñoom dañ ay nafiq alquran di wàcc ma nga ca suratu tawba fa sun borom tabaraka wa taala di waxee laqad taaba allahu ala nabi yàlla day jégal na ab yonentam wal muhajirina wal ansar ak muhajiroon yaag lansaar ya alladina tabacuuhu fi saati al usra ña nga xam ne ñoo ko toppoon ci bis bu jafe muy bisu te buuk kooku mooy saatul osra mooy booba kon ñu génnoon ñëpp ñoom am nañ foofa seen jégal moom mu leer nañ min baadi ma kaada yaziigu qulubu fariqin minhum gannaaw boo xamee ne dem nañ ba am na ci seen biir ñoo xam ne seen i xol dem na bay jeng kon mooy ñooñu summa taaba alayhim innahu bihim raufu rahim daal di cay teg nag wa ala thalathati alladina xullifu mu ne jéggal na itam moom suñu borom tabaraka wa taala ñett ña nga xam ne ñoom ñoo ruusaana woon ñooñu ma wax la ne mooy kaab ibnu malik ak murara ibnu rabia al amiri ak hilal ibnu umayya ñi ngi tënke seenu tur ñoom ñett makka makka murara mooy miim gi kaaf mooy kaab ibnu malik haa gi mooy hilal ibnu umayya al waqifi kon ñett ñooñu alquran daal di wàcc wane ne suñu borom jéggal na leen wa ala thalathati جيجل ليت نيتنيا الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت نولوك الفران تيري دونغلا نيانا لسوف دي ياتو ياتو ياتو ديمون نبخط تي نيوم ديمون نبخط تي نيت نيوم وضاقت عليهم أنفسهم ديم نين بسخ كان كونك سجمي بوك دفلي سين فناكي جيجا ناك دي دونو ديم غبام ديس كيو جير دي دوندا يورن تبي الله سكو سوف دي دوندا أي صحابام كون دي دولا فاي كو واخد دولا تونتو سا سوخنا سخ يوتي دونغم دانو boo waxee sax du la tontu far moom lii da lay jox benn boo xalaatee da ngay gis saxaaba yi fan la leen digalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àggoon kon ku ñu raw ku ñu raw foofu lañ la rawe su ne def leen def amul wax mënoon nañ faa nekk di tawil naan ndax ndi ndigal loolu lil wujub wala ndax istihbab la ndax loolu dafa war wala luñ sopp la fexe ba ubbi bunt boo xam ne danañ fa mën a jaare ba wax ak ñooñu waaye déedéet def leen def bàyyi leen ñu bàyyi loolu mooy mbirum mbirum jullit ci biir lislaam kon nag ñooñu ñu dëggu lañ ñu dëgër lañ naafequñ woon itam ndax am na ñu bari ñoo xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ko jéggalu dañ doon wax lu amut ne ko nangam moom a fi bàyyi woon mu jégal leen ñu dem Kaab bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam woo mu ñëw bi mu ko laajee ci bis rek laa xam ne mere na ma damaa ñëw nee na bi alayhi salaatu wasalaam li mu daan def mooy bu tukkee ba ñëw jàkka jëlee jëkki julli fa ñaari rakka bi ma déggee ne ñëw na bay julli rek ma gaaw fekk ko foofu maa ko jëkk gis nee na musulman ma toog fi nee na mu mooñ mooñ boo xam ne xam naa ne dafa mer nee na mu ne ma loola loola loola loola tax a des gannaaw nee na ma ne ko dara mu ne ma amul benn ngànt ma ne ko déedéet wax ak dëgg jaar ci mbir ma nam demee ne ko bis bi ngeen di waaj di dem kero jekk naa jekk goo xam ne jékkuma ko woon kero badal jekkuma ko woon it kero oxo waaye nag dikkuma nee na mu génn mbokkam yépp song ko di ko yedd ne ko lu tax mënoo woon a ubbi bunt wala nga ji mu aw ngànt wala nga def ni ñeneen ñi def def nee na mu ne leen lu ma dëgg di xañ loolu danaa ko ñàkk dal di def kon ñooñu ay nit lañ yoo xam ne ñu dëggu lañ waaye li ñu bëgg a jëriñoo ci xadis bi xam ngeen ne bunt bi nekk fii ci téere bi mooy wattandiku ñi nga xam ne ñooy ñooñ bidaa ak gàddaay leen bañ a jëflante ñoom bañ wax ak ñoom kenn ku ne xam ne ne kaab ak àndandoom yooyu doonu ñu woon waa bidaa nekk ñu woon ci ay bidaa wante yonente bi alayhi salatu wasalaam am na lu mu ragal ci ñoom mu digal jullit ñu daggoog ñoom bañ a waxante ñoom kon nag Abu Dawud li bëgg a wax foofu mooy boo demee ba gis ab jullit boo xam ne leer na la ne kii wàcc na xal wi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xàlloon ne fii la muy alquran ak sunna jaaratu ca nee na bu boobaa daggoog moom jot na loolu la la bëgg a ubbil ci xadis boobu moo tax mu andi foofu xispa muy nettali Kaab ibnu Malik ak ñi nga xam ne ñooñu la ñooñu la àndaloon euh, xadis boobu nag xam-xam bu bare bari la làmboo euh, ba dafa fees dell kon dal hadith bi loolu li tegtaloo giñ ci tegtaloo mën nañ ko tuddee ne loolu li ñuy tudde babul awlaa la mooy su fekkee ne nangam am su fekkee ne ñi nga xam ne nekkuñu woon ci bidaa ñoom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal ñu gaddaay leen diir bu yàggee noonu kon ku nekk ci biir bidaa moom bu leer nañ kooku taxul ñuy wax ndaxte ñooñu amul benn werante ne ñu woon ci ñoom bidaa te it leer na nañ ne ñu dëgg woon lañ ci lañ nekkoon sax waaye rek dañoo génn loon xeex ba tey it danañ ci jëlee ne gaddaay ab jullit xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na gàddaay ab jullit lu ëpp ñetti fan ñu ne kon li ñuy foofu mooy gàddaay ab jullit gi ñu tere lu ëpp ñetti fan mooy mer moo xam ne dafa dox sa digganteeg moom ngir seen mbiri bopp ngir seen mbiri bopp waxtaan ngeen ba seen waxtaan jiwoo wala nekk ngeen seen maslaay àdduna ba meroo nga bëgg koo mere nee na loolu bu mu weesu ñetti fan waaye nag bu dee mbirum diine moom nga xam ne alxubb fi llaahi wal baxdu la bañ ngir yàlla ak bëgg ngir yàlla nee na li fekk sabab saa fa kooku mënees na ko gàddaay su fekkee ne da nga ko gàddaay ngir bidaa lay tax gàddaay ga mën a jeex mooy bidaa ba jóg fa su fekkee mooy yàlla la lay tax gàddaay ga jeex mooy mooy yàlla ga jóg fa buntu bi ci tegu bokkum jàngale wu ko waaye daanaka mooy maanaami rek mooy buntu babu tarki salaam ala ahli al ahwa bañ a nuyu ñi nga xam ne ñooy waa bidaa ab xadis la indi foofu boo xam ne xadisu Ammar ibnu Yaasir la nee na qadimtu ala ahli wa tashaqqaqat yadaaya ne benn bi damaa ñëw ci sama waa kër samay loxo xar xar bu fa xalaquuni di zaafaraan nee na ñu diwal ma ci gëtt gu ñuy wax zaafaraan gëtt gu diis gu taratar la naqariw xet su fekkee jaxase wuñ ko ak leneen sax xet gi day mel ne neexu فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه لأن يعني ما خير أنت صلى الله عليه وسلم يقول نيسي فلم يرد علي لأن يعني النيوم من يوك فيوم وقال اذهب فاصل عنك هذا دمل بعد من قرأ خصني نمل لأن يعني ما دمل خصني من يدور كل نيو مدور ما فيه مميان أنت صلى الله عليه وسلم فانتكتلوا حديث حديث بابو حديث لما متنبوه حسن فنعم أه، بجمان سكن لكله xadisun xasan comme ni ko Cheikh Nasir waxee ci saxiix Abi Daawud liñ ci tegtaloo moom ni ñu tegtaloo ci xadisu Kaab moo ñoo yem ndaxte Kaab Ammaar ibn Yaasir xamul woon ne jëfandikoo gëtt googu muy zaafaraan dañ koo tere xamul woon dañ ko tere jëfandikoo zaafaraan bu nekk xaalis nga ko jëfandikoo moom dong xamul woon ne dañ ko tere ànd ak loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bëgg laa wax ne loolu su fekkee noonu la kon nag koo xam ne dafa nekk ci bidaa moom wala mu nekk ci topp bànneexam kon kooku moo gën a yow nga dagg ko su fekkee ne ci wàllu gëtt rek la yonente bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko cee fay kon keneen ku mel noonu taxul ñu wax te hadith bi sax am na feneen fu mu ko génne foo xam ne fa la gën a mate nee na ñaari yoon nee na benn bi damaa dem raxas ko ndekete am na lu des bi ma dikkee nuyoowaat mu delloowaat na ba ci ñetteel ba mu door a set mu door maa fay nee na bi mu ko fayee ba àggal teg ko ci ne ko innal al malaika la taxduru janazata al kafir bi xayrin ne ko malaayika yi day duñ teewe néew ab yéefar teew koo xam ne aw yiwa leen di yëkkati aw musiba leen di yëkkati bugal wala al mutadammix bi zaafaraan mu ne ko ku diwoo zaafaraan nii nga ko diwoo itam malaayika yi duñ la teewe maanaam kon loolu luñ tere la tere boobu kon xëy na amar ibn yasir xam ko woon amul xëy na sax su ko xamoon du ko jëfandikoo waaye teewul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëf leen teeg moom noonu kon daal gàddaay koo xam ne dafa nekkul ci sunna dafa nekk ci bidaa wala koo xam ne dafa nuur ci ay mooy yàlla naan sàngara wala muy def loo xam ne lu ñu xaraamal la ci bakkaar yu mag yi kooku ko dafa bokk ci diine waaye nag dafa am ay détails yu ne ci biir moo di kii gàddaay lam ca jublu ñaari mbir la benn bi mooy jaaj ji jaaj ji ki nga xam ne moo ne ci ndëngte gi ngir mu delsi koku dañ ko wara jaaji ngir mu del ci bir yoon koku nak koy man moy ko xamne dafa am daraja bo xamne su ko gaddaaye dana feeñ wala nga xamne ñepp dañoo gadda and gàddaay ko comme ni sahaba yi defoon ñooñu ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su fekkee ne ñu gën a bari ci dëkk ba wala ca gox ba mooy ahlu sunna am jëmm joo xam ne si dafa jekki-jekki fedd géewu génn sunna mbooloo mépp dañ ko war a gàddaay wala am na fa jëmm joo xam ne su ko gàddaayee mel na ne mbooloo mépp gàddaay nañ ko hmm, kooku da koy war a gàddaay moom wante nag su fekkee kenn dong la koo xam ne ci biir mbooloo mi la nekk su ko gàddaay sax du yëg ne gàddaay na ko kooku foofu su fekkee jubluwaay boobu rek la kooku du war ci moom beneen sabab bi waral loolu ci gàddaay ko mooy dawale sa diine ragal mu wàll la ni ñuy dawe ko wopp moom lañ ko war a dawe lu dul nag su fekkee ku dem ba wóolu boppam nga xam ne jàpp na ne lii diw nekk moom mënu ko ci yóbbu ci genn anam ndax xam na la ca nekk ci neen lépp na na mën a la ko ci mën a lor la ko ci mënta lor kooku mën naa jaxasoo moom ngir woo ko ngir xëcc ko waaye si ñaar yooyu amut doo mbooloo moo xam ne su ngeen ko gàddaayee mu delsi man ko jàjj doo borom kàttan li ñuy wax sultaan pouvoir boo xam ne boo ko gàddaayee munu laa ñàkk faw mu delsi ragaloo itam diineem ragal ne daf lay yóbbu ci lam nekk yooyu su amut la fay sës mooy mbañeel goo xam ne mooy mbañeel gi ne ci xol bi nga bañ ko ngir bidaa bi mu nekk waaye teewut mën ngaa jëflante ak moom ci kaw mën ngaa jëflante ak moom ci kaw duggante génnante defante di waaye nag bu mel ci sa xel xol mukk ne na ngay jëflante ak ahlu sunna wal jamaa loolu moom foofu la diine yam ak yow ndax foofa gis nga munkar te munkar ku ko mënta soppi la ca gën a suufe mooy nga soppi ko ci sa xol mooy nga bañ ko ci sa xol ah, su fekkee bañ nga ci xol amut kooka moom ngëm gu mat daf faa nekkatul ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee loolu ba àggal daf ne loolu mooy la gën a suufe ci ngëm kooku mooy adaful iman mooy ngëm ko gën a suuf kon defe naa ne mën nañoo taxaw foofu eh, am na it leen ci ay mbokk yu laajoon laajoon ay xadis xaw ma ndax borom laaj bi mi ngi fi wala déet su fi nekkul ñu tajil ko bam fekke ko parce dafa am xadis bu aju woon ci wàllu koor yow la woon de naka la woonati waaw dëgg la waaw fàttali ko naaw kon kooku mooy xadis bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne su fekkee ne kenn ci yéen dégg na nodd gi dégg na nodd gi fekk mi ngi tiim ndabam mu ne kon bu mu bàyyi lu dul dafa faj aajoom ba noppi bu mu bàyyi lu dul dafa faj aajoom ba noppi loolu dafa am ñoo xam ne ni ñu ko déggee dañoo jàpp ne mooy bu ñuy nodd fajar mën naa fajar mën naa jot ba noppi nga continuer yow di lekk waaye na du loolu mën naa tekki benn ci ñaari mbir menn mi moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci benn xadis ne inna bilalan yuaddinu bi leyl fa kulu washrabu xatta yuaddina ibnu ummi maktum mu ne bilaal guddi lay nodd moom waaye nag su ngeen déggee noddam googu mën ngeen a di lekk ka naan ba keroog ibnu ummi maktum di nodd ndax moom mooy nodd fajar mooy nodd nodd gu mujj gi ci ni ñu koy wax ci jamono ji léegi maanaam mooy mujj nodd su noddee rek li muy tekki mooy fajar ji xar na fajar dugg si na kon soo déggoon kuy nodd nodd goo xam ne fajar jotagul booga nodd du tax nga dagg sag lekk mën ngaa continuer lekk ba sag lekk jeex bul ko dog waaye nag su fekkee ni kii nodd fajar moom dégg nga kàddoom fu mu la fekk sa ñoto lekk boobu ginnaaw xam nga ne suy nodd li muy tekki mooy fajar dugg koo xam ne dafa dégg nodd gi ba àggal di sikki sàkka ci fajar xam ngeen ne jamono yooya kii nodd ak ki noddul ñoo bokk yem ci fajar gi amul montam ñu sukkandiku amul dara asamaan si lay xool nattale ba jàpp ne fajar xar na su fekkoon ne moom may nodd leeru ko nañu ne fajar si xar na waaye mi ngi sikki sàkka ndax fajar xar na kon moom mii ci boppam it day sikki sàkka ndax fajar xar na su fekkee ne nag amut lu ko leer na fajar fajar si ñëw na kon kooku sañ naa lekk sañ naa naan kon kooku benn benn déggin la ala kulli xaal li wér te wér mooy sañuta lekk gannaaw boo xam ne fajar jot na tam xam ko sun borom tabaraka wa taala wax wakuloo washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayt al aswad min al fajr aay boobu moo leeral lépp lekk leen te naan ba mu leer leen nañ ne fajar jot na fu mu la leer na fajar jot na nag arrêté lekk bi ak naan parce que xatta jooju mooy fa mu yem am na benn xadis boo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam day wax ne al fajru fajraan fajar nee na ñaari fajar la فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة فجر بو خامني لك دغناتول جولي دال ناي دغال كون كوكو موي بو بو فجر جوتي فجر بي مجي دي فوم جوتي بو بوبا لك دغناتول فوكو لير نانا سي حديث بو فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة كون فو جولي سوبا جوتي رك لك موم دغناتول كودي سي كور وفجر تحرم فيه الصلاه wa yaxillu fiihi attaam beneen fajar bi nee na kooku julli daganagut booba ndax jotagut wante nag lekk lekk moom dagan na kon daal foo xamee ne julli jot na muy su fajar duggee foofu mënatoo lekk su fajar dugg na mën ngaa lekk mën ngaa lekk ba ñu ba ba muy nodd ba ba ngay dégg nodd su fekkee ne moom suy nodd rek li muy tekki mooy fajar a ngi jot su fekkee noonu lay nodde kooku mën ngaa lekk ba noddam jot su fekkee rek jotagul kooku moom bu fekkee day noddu te jotagul kooku mën ngaa lekk gannaaw ba noddee ba noppi sax li am solo lépp daal mooy fajar gi moom mooy heure bi ñu jàpp loolu moo jaadu woon maanaam su fekkee ne ni nit ñi doxale nga xam ne léegi salaatu xayru mina nawm ñu ngi koy def ci noddu gu mujj gi te lu gën a bari mooy am na ñoo xam ne ci noddu gu jëkk lañ ko lañ koy def mooy la saxoon ci jamono yu jëkkee wante bu fekkee ne salaatu gi dañ koy def jamono yi nga xamee ne képp fajar ngi jot kon kooku mënatu la lekk wante li gën a wér ci mooy sukkandiku ci su fekkee ne ñi nekk ci fu amut ay lamp yu leer wala yu mel noonu ñu ji ma sukkandiku ci asamaan si ji ma xool fajar bi wala ñu fexe ba xam heure boo xam ne heure boo xam ne danañ xam ne bii bu jotee rek fajar moo dox digganteem ak guddi gi wante lu gën a bari ci noddukat yi boo sukkandikoo ci ñoom mën nañ laa nax ndax danañ salaatu fekk yeex na lool wala ñu salaatu fekk teel na lool lu ci nekk dana fi am kon nag loolu moo tax jullit bi war naa def kem kàttanam ngir xam fajar bi kañ la soo ko mënee sukkandiku ci montar boo xam ne bu baax la daal eh, kooku moom mooy li a baax อะไรก็คำในเรื่องก็บรมคำคำเด็กก็เสียดหรืลบแท้กุจะคำคำนี้เสียดก็บุ้งเงินคำในลอลูแท้ก็จะแท้กุจะคำคำนล้วรอลูมันสุขันิคุลเรม่องจะต้องคำชีวิตตัอใหญ่ด้ัลมวยอันนั้นเป็นมันตรบอกเนี่ยอัลอาสรเล่องก็จะเด็ดเพราะก็ดัลมุมนัดนาผมมุมเสียดนาเนี่ยกิสนาเนี่ยลูลูลูโคตรลยมุมใครนั่นก็สารวัตรเลยยิบมุนยุกยิบมุนยุกจอมุลแม้ดึกบ่ได้มเนี่ยกระดังยิ่งหาเสีมัวขลวัตรจุลีบอรบอรบบันเลยโดนวัตรจุลีบอรบบันเลยเนี่ยเรื่องจะต้องเสียดเลยชิคอรุดาวมัวดีเออบิงก์ฮันี่มุมนียนิดนี salaatu moom dana fekk moom joxe na heure bu bu yàgg moom dana ko dana ko jiitu kon uh, bu mbokk bu fekkee ne noonu mu ko defee noonu la demee lu mat ay fukki minute ak juróom wala lu ko jege jombul na programme bi mu def xëy na lu lu sew la waaye man gisuma ko mënuma ko atte eh, aajana seet su fekkee seetlu nañ ko mu leer na lu sew la lu tegu ci yoon la kooku sukkandiku ci jëfee ko kon di mën lay doon wante aajana seet mooy benn ñaari xadis nga waxoon de kooku ñaari xadis la woon benn bi moo doon beneen xadis boo xam ne moom itam bu wér la mooy al masalatu an tarfa yadayk foofu oh, xadis bu day wax ne ñaan mooy nga yëkkati say loxo xaswa man ki bayk nga yëkkati say loxo daal bam tolloog say mbagg maanaam kon kuy ñaan kuy ñaan sañ ngaa yëkkati say loxo bam tolloog say mbagg am du ci du ci lu mënta ñàkk waaye bu fekkee ne da ngay da ngay ñaan am aajo nga xam ne da nga ko bëgg a faj yëkkati say loxo bam tolloog say mbagg mu ne wal istighfar an tushira bi usbain wahida ñu ne bu fekkee da ngay jéggalu nag boo amee benn geste booy def boo yëkkati sa loxo na nga def benn baaraam parce que baaraam boobu dañoo wax ne lim ci jublu mooy day ŋàññi sa baaba bi daf ci ŋàññi seytaane di ci ŋàññi itam bakkanam bi nga xam ne moo koy digal lu bon bu koy joxañ day mel ne loolu la ci jublu moo tax ñu ne bu fekkee day istifaar na na tàllal benn nay tàllal benn baaraam astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa hu ko benn baaraamam bu dee ibtihaal nag al ibtihaal mooy toroxlu gu gu àgg fa toroxlu mën a yem suufeel sa bopp ngir jañ lépp ay woo xam ne dafa jëm si ci sa kaw ñu ne bu fekkee ne daf koy def nag day yëkkati ñaari loxoom ba ca kaw eh, gannaaw loxo yi féete ak kanamam maanaam nii mel ne kuy kàbbar di julli kooku mooy mooy al ibtihaal maanaam lu ci nekk daal melokaan la ñaan daal bu fekkee day ñaan rek am aajoom di ko jëfe am na nu mu war a jëfandikoo bu fekkee ay bakkaaram a ko naqari ba mu bëgg koo lu am na nu mu war a jëfandikoo mu jëfandikoo baaraam bu dee kuy toroxlu ngir bëgg a jañ aw yiw eh, jañ aw ay xëcc aw tàllal ay loxoom yëkkatee ko nii gannaaw loxo yi féete féete xar kanam loolu mooy li ñaari xadis yooyu teg comme ni ko borom xam-xam yi waxee wallahu taala alam xibaar defe naa ne day li li muy def laajam bi daanaka lépp examen jazakallahu xeer daf ne ma maana al kalimat lati taxtaha xar ab xadis la bind ne ma am na ay ay moo yoo xam ne dafa am terrain bu nekk ci suuf yooyu li muy firi bon al maasif mooy lépp loo xam ne dañ koy musique lépp jumtukaay boo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir musique rek moo xam tëgg la wala lu mën a doon waaye moom la du foofu nag moom jàmm la mu faral mooy duf mooy li ñuy wax ndënd wala sabar wala xeetu lépp loo xam ne dañuy yor gale moom itam di ko ci dóor kooku duf la alxinaat mooy jigéen ñiy way lépp moom mooy loolu dafa naa ñetti baat yooyu la bu fekkee day laaj bu fekkee da ngay dugg këru koo xam ne du jullit ci ahlul kitaab la bokk kooku da bëgg rek da ngay fëgg pour yëglu da ngay fëgg waaye bu leen asalaamaaleykum yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñooñu bu leen leen jëkk bu leen leen jëkk nuyu bu leen leen jëkk wax asalaamaaleykum suñ la waxoon dara itam da nga leen di wax wa aleykum ndax xamoo asalaamaaleykum la ñu wax wala dugal nañ ci leneen loo xamut wala yu mel noonu ndax yow yi daanañ ko wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci moom naan ko asalaamaaleykum yonente bi ne leen wa aleykum maanaam li ngeen wax na del ci ci yéen rek lu mën a doon xam nga ne asalaam mooy faatu asalaamaaleykum mooy yàlla na dee nekk ci ak ñaan yàlla la waaye nga ne ko waaleykum mu jeex na loolu dellu ci yéen su fekkee salaam la wax kon baax na su fekkee lu bon la wax it mu dellu ci moom am sàppe dafay laaj sàppe julli ndax sàppe ñaareel bi atteb sàppe su njëkk si la yor wala déet yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax xemmem loo ci ndeyjoori sàppe yi su njëkk si ak su mujj si ñoo ci yem sun borom tabaraka wa taala ak ay malaayikaam danañu julli ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndeyjoori sàppe yi kooku ab soññee la ci julit bi xet ci julee ci day joru sappé mo xam sappé su njëkk si la wala sa ci gannaaw la wala su mel noonu waye li ñuy bañ moy sappé su ci fessa gut nga ne da nga bëgg a nekk ci jor fekk nga lay jor bi fess tax na nga demee ci càmmooñ nga ne damay tambali sos ñaareel ta fekk sappé kanam bi dess na déedéet da nga wara a mottali ba sappé kanam hmm. Hmm. ci fess del ñi dooro tambali sappé sàppe man na tambalé ci ci imaam jëm ndeyjoor mën na tàmbalee ca ndeyjoor itam jëm ci ci imaam fu mu fi mën a tàmbalee rek fu mu mën a doon amul benn werante daal ne lu féete ndeyjoor lu mu mën a doon moo gën la ko féete càmmooñ ci biir la jaadu woon su fekkee ne mbir dox na mu war a doxe mooy ku nekk ci te warta jiite jàkka ku nekk ci bidaa warta nekk imaam imaam fa mbooloo ma mooy seen royukaay mooy que gën a xam diine war leen koy xamal mooy que leen a gën a xam sunna war leen a teg ci yoon mooy que leen a dàq jàng alquran war leen a won nañu jànge alquran war a jàng alquran ju rafet ju neex ñu di ko dégg ci biir julli gi di ci jëriñu wante su fekkee dem na ba jamono yàqu comme li nga xam ne moom la ñuy dund euh, ba ay imam am yoo xam ne meluñu li ñu war a mel teewut borom xam-xam yi ci bunt boobu bind nañ ci lu yàgg yàgg yàgg moo di julli wara al mubtadia bunt la ci bunti téere fiq yi julli ci gannaaw ñi nga xam ne ñu jàng lañ it ay fustaaq loolu itam ay bunt la lislaam dafa xéer ci mbooloo dafa xéer ci ci mbooloom jullit yi surtout bu dee ci wàllu aju ci wàllu julli bidaa ñaari xarit la am na bidaa boo xam ne àggut ci kéefër jiwyoog sunna la rek lu mel ne li ñuy jëfandikoo ci ay wàllu sikkar ak ay wàllu yëf yi fànn yu mel noonu wante nag su àggee ci pas-pas boo xam ne dafa dem nag ba génn nit ki lislaam mu dugg ci lu dul lislaam su boobaa kooku moom ak julleem baaxul war ta moom moom du jiite ci lislaam waaye nag su fekkee ne bidaa bu àggut ci kéefër la kooku su yàlla nattoo jullit yi mu doon seen yilimaan itam dañuy julli rek ci gannaaw dañuy julli ci gannaaw ndax bidaam yooyee maanaam comme niñ koy waxee alayhi bidaatuhu bidaam bi moom moom moom la war waaye su mën naa julli julli gu rafet julli wàllu sharia dara lu ci yàqu kooku jullit yi mën nañu julli ci gannaawam te seenu julli dara du ci sikk ngir xéer ci mbooloo ñu ne su fekkoon ne dem nañ nag ba ak julleem ci boppam ñu am ci lu ñuy sikk sàkk ndax wér na wala wérut ñu ne ba tey it nañ julli rek ci gannaawam ku génn te sam xel dalut boo delloo sa kër nga julliwaat sa julli wante rek na nga julli ci mooy li gën a wér ci buntu boobu waaw loolu la ko borom xam-xam yi wax moo di zanfaraan bi su fekkee zanfaraan xaalis la bu jaxasoowut ak dara moom daanaka sax parfum lañ ko tudd waaye xawu koo doon ndax xet ga neexul waaye nag suñ ci dugalee yeneeni parfum day daal di day daal am solo day day neex ñu mën koo jëfandikoo su boobaa Euh, ñu wax ne kon loolu dana ko daganal loolu dana ko euh, jabar bi su fekkee ne daf ko fase fase moo xam ne mu dogut la cest à du ñetteelu fase nga xam ne su ko neexee mën na koo delloo siwaat ci lu dul ñuy fasaat seen diggante kooku ci biir kër gi ci la war a iddawoo suñu borom tabaraka wa taala loolu wax ne askinohunna min haythu sakantum na ngeen leen dëkkal fi ngeen dëkk ndax loolu dafa am lu ci lislaam jublu mooy ndaw sim fase te fekk mën na koo fayliwaat kooku dañoo bëgg ñu bañ a soree ndaxte lee xolam mën naa wëlbatiku diir bi mu fi nekk di idda wu balaa idda jee jeex ndax mu jëlaat mu gën ñuy tàggali ko di dem watax mu ne sa yaxditu llahu bada zalika amran suñu borom tabaraka wa taala mën naa sosaat ci xolub waa ji ko mere woon ba fase ko dara soppi ko waat ba mu dikk takkaat ko ci diggante ba mu jëlaat ko ci diggante bi xam ngeen fay li ajo takkaat su fekkee idda ji jeexul day jekki-jékki waaye nag dañ koy daal di konteel benn pase su ko waccaatee ci ñaareelu pase bi ko noonu foofu lay idda woo li fekk idda ji jeexut ba tey mën na koo delloo si waat waaye nag su ko xasee pase ñetteelu pase nga xam ne leer na nañ ñi ne sañatu koo fayli léegi kooku na dem yoonam na dem yoonam idda woo ji feneen su noppee ba geneen góor takk ko ci yoon su demee ba waccaat ko su boobaa waa ji sañ na koo ñaani ñu may ko idda bu fekkee ne xale bi dafa doon ku ku ndawe ku àggagul ci gis regal wala mu doon ku mage koo xam ne weesoo na gis regal kooku ñetti weer la su dee ki toll ci gis regal la nag kooku ñetti su gisee regal ñetti yoon waaw su laabee ñetti yoon gis na ko laab gis ko laab gisaat ko laab kooku iddaan jeex na kooku iddaan إلى القيامة wàllu jéggalu yonente bi alayhi salatu wasalaam baat bi mu jëfandikoo mooy astaghfirullaha fi lyawmi sabaina marra wala miati marra ci beneen riwaaya danaa jéggalu yàlla ci bis bi lu mat juróom-ñaar fukki yoon wala lu mat téeméeri yoon nan la koy jéggaloo nag am na ay siyar yu ci rot ay tëggiin yu ci rot astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayu alqayum kooku rot na astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi loolu rot na ak yeneen yu bare bari boo delloo ci téere xadis yi ak kutubul azkar danga ko ci fekk ndax nit ki su fekkee jàpp na ba noppi sobe taq ko ndax loolu dana toj njàppam nga bëgg wax wala dana julleem njàppam moom loolu du ko toj njàppam loolu du ko toj maanaam nit ki jàpp ba yor njàppam mu sell wala mu sang ba yor ca ngaayam lu sell sobe taq ko mën naa romb place ñu sotti ko ndox moo xam ne sobe ca nekk wala mu joggi loo xam ne sobe la te fekk mu def tànku neen wala mu tax ci ay yéreem loolu tojul am njàppam waaye nag mun mënta julli it te dindiwu ko kooku la ñuy tuddee tahaaratul xabas maanaam su fekkee ne sobe dafa tax ci saw yaram wala ci sa yére wala ci sa béréb bi ngay jullee bala ngaa julli faw da nga ko war a laabal door a mën a julli waaye nag tekkiwul ne da dem jàppi jàpp moom toj rek moo koy moo koy moo koy waral nga def mu ne tarawih lan mooy tax mu doon sunna ginaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñenn ñi neenañ defu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na tarawih julli na ko ñetti fan wala ñeenti fan ci madina boo xam ne day woo mbooloo mi ñu dikk dajaloo ci ji mu julli ci seen kanam bu ëllëgee mu dellusiwaat ba mat ñetti fan wala ñeenti fan ci riwaaya bi beneen bis ba ko wala ba ko mbooloo mi toog ci jàkka ji di ko xaar génn génnul ba fajar jot mu dikk jiite leen julli suba bi mu sëlmalee ba àggal mu ne leen dégg naa seen dajaloo gi ngeen dajaloo bi ma nit waaye nag dikkuma dama dikkut loolu li ko waral mooy dama ragal ñu farataal ko ci yéen kooku ci yërmande yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xeet wi ci la bokk ndax su fekkoon ne farataal nañ ko ci ñoom dana mën a diis ndax nit ñi lépp luñ farataal ci ñoom rek dañu daal tàmbali di di yëg yan bi ni mu diise ñeen fii ne nit ñi ni ittewoo julli trawes ci koor maanaam itti woowuñ ni daanaka ci lii farata ndax dañoo yëg ne su fekkee ñooy posé seen bopp di defali seen bopp di coobarewu lu nekk àttan nañ ko yan seen bopp waaye bu ne leen lii yan nañ leen ko dañuy tàmbali di sakk-sakk jàpp ne lu diis a diis lu metti la kon nag suñu leen yan woon yan loo woon salaatu tarawih kooku mën naa diis ci ñoom ñi bañ koo def suñ ko deful kon danañ ci am bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu rëy lay doon loolu la ne joxe na foofu ab atte wax itam illa maanaam sabab bi tax mu def ko moo di ragal ñu faratal ko ci ñoom kon bu fi jógee moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li taxoon mu arrêté ko loolu jóge na fi ah atte bu mën a doon nag la taxoon mu am su fa jógee kon day daal di mën a dellu su fekkee daraa ko tere woon su fa loola jógee atte ba day mën a jógaat taxaw julli na naa fi la bàyyi na ko ngir ragal ñu farataal ko ragalatuñ ñu farataal ko kon julliwaat naa fi la mën naa dellu si waat ndax xam nañ ne gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam farata amatul ku koy farataal kenn ku ñuy wax yu amaatul gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam kon gannaaw yonente bi julli farata julli salaatu tarawih moo xam da nga koy def yow dong wala da nga koy def yaa mbooloo mu néew wala mbooloo mu bari ci jàkka ci kër foofu fu mën a defee sunna la bu sax jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalaam léeg-léeg mbokk yi dañuy laaj laaj yoo xam ne laaj bu jékki-jékki ñëw noonu rek la léeg-léeg day doon boo xam ne it day am ñu jaar door a ñëw maanaam atte atte lay war a doon su fekkoon ne tribunal bi dafa nekk fa la war a dem ngeen ñu ne leen diw yaa nekk ci dëgg diw yow nekkoo ci dëgg waaye ala kulli xaal dimbalante dimbalante suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne wa taawanu ala al birri wa taqwa dimbalante leen ci aw yiw dimbalante leen ci ragal yàlla wala taawanu ala al ismi wal udwan bu leen ci lépp loo xam ne mané lépp loo xam ne du ak topp yàlla lépp loo xam ne bidaa mën na faa ñëw wala mooy yàlla mën na faa ñëw loola ci ismu la bopp bokkul ci albir wa taqwa bi sun borom tabaraka wa taala digli kon am mbokk ngi fii daal moo xam ne mi ngi taxawal loo xam ne ngi ci kër kër di ko def te xam naa ne lii bàkkaar mën na caa jóge ngir ne bidaa la wala mooy yàlla mën na caa jóge mën nañoo teg seen baakul ci fecc wala yu faan mel noonu booy baas sa baas su ma la mënee laa biire nga bàyyi ko defal loolu munoo ko nag toogal di ko seetaan waaye bu ci àndaale ci bidaa bu ci àndaale itam ci ak mooy yàlla loolu mooy li nga xam ne moom moom lañ ci teew jëla moom muy woola yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne fa ida duitum fa ajibu si leen woo na ngeen wuy ji borom xam-xam yépp ñu d'accord ci ne ñu woola nga dem wuy ji kooku dafa war ñu ne nag lu dul su fekkee ne fa ngay wuy jee lu bon dafa am loo xam ne mënoo koo soppi su fekkee mën nga koo soppi moom dem nga sax day gën a war a ci woote bi war na noonu waaye su fekkee lu bon mën na fa am loo xam ne boo demee mën naa soppi kooku daa gën a warati ci yow nga war a dem waaye nag lu bon nga fa loo xam ne soo demee da nga fay toog rek di déglu ne ñëpp kooka bul dem bul dem lu njiit moom ban façon njiit la njiit loo xam ne day digle ñu jàng xëy na bi ñaari yoon Thank you. ala kulli xaal su fekkee ne dafa saxoo di nga jàng maanaam te su fekk jàng gi tegu ko ci kaw ne waxin wu jëkkoo dafa leerut muy leeralaat wala mu dafa dafa desee wér mu di ko wéralaat ndax loolu léeg-léeg mu am ci ay baat ci alquran waaye nag bu dee daf koo saxoo nag nga xam ne dafa jàpp ne lii dees ko war a jàng ñaar yoon ci fatiha kooku moom day daal di dugal nit ki ci leneen moom ci bidaa fa mu njiit la ku mu a doon waaye digle na digal moom ku fi sa ndigal jooyoo ak ndigalul kooka ndigalam day daal di naax saay moom ndigalul yonente bi alayhi salaatu wasalaam rek moom moom la ñuy jëfe jàng ay baat yu ñuy takraar di ko baamtu ci biir fatiha loolu amut amut ci julli amut ci leneen lu dul julli sax jàng rek lu aju ci wàllu jàkk yi ak diggante nodd ak julli la fa war a dox loolu lay njuum te bari na ci lool ñenn ñi buñ noddee rek daal di taxawal te du noonu julli gu nekk diggante nodd ga ak fa ñuy taxawale dara war na fa dox bul fàtte ne nodd gi woote la da ngaa woo nit ku war a jóge këram amaana fekkul mu laab mu war a jóg laab bu noppee jaar ci yoon wi war a dox ñëw ba agsi ci jàkka ji fekke ñu taxawal mu fekkee takk biratul ihram loolu aw yiw la te it loolu noonu lañ ko bëggee kon genn julli gu nekk digganteem ak nodd gi war naa am digganteem ak taxawal nodd gi ak taxawal gi war naa am diggante boo xam ne danañ may julli di diggante bu toll noonu ñu di ko jëfe moo tax bu fekkee dem nga fu mel ne fële ca euh, Eh, Arabie Saoudite réew yi Màkka ñoom jàkka ju nekk dañ fay taf diggante nodd ga ak liqaam bi dañ lay wax ne bu fekkee ne timis la fukki minute a ngi foofu dañuy nodd timis bu matee fukki minute ñu taxawal bu fekkee ne jullit fajar la ñaar fukki minute ak juróom bu fekkee ne takkusaan la ak eh, tisbaar ak gee bu ci ne ñaar fukki minute kon loolu doon na lu doy loo xam ne soo déggee nodd gi même su dee timis bi su fekkee da ngaa wooroon mën ngaa dog sa koor mën ngaa jóg jàpp fukki minutes yi daal di waaxu dem ci jàkk ji bokk ci julli waaye su fekkee ni kii nodd moom bu daaneelee nodd gi rek moom daal di taxawal kon kooku ci boppam doonut loo xam ne dara doona ko tax yëf yi du noonu wante léegi su fekkee ala kulli xaal dugg na ci jàkka ji moom fekk ñi taxawal julli gi te julleegut ñaari rakkaay fajar li muy man mooy dugg rek ci biir jàkka ji julli noonu ànd ak imaam ci bu sëlmalee rek mu jóg fay ñaari rakkaay ñaari rakkaay fajar loolu mooy li nga xam ne moo sax moo tax ndaxte li ñuy bañ mooy mu dikk fekk imam ji julli mu taxawal moom di julli ñaari rakkay fajar ba àggal door a ñëw dugg si ci julli yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa ne ida uqimat salatu fala salata illa al maktuba bu ñu xasee taxawal farata ji amatul lenn lu ñuy jullee lu dul farata ji rek leneen loo julli maanaam du dara da ngay yëngatu rek waaye defoo dara ndax fala salata la wax kon duggal ci julli gi bu jullee ba sëlma nga door a fay sa ñaari rakkay fajar lañ tere nag julli gannaaw fajar loolu bokk ci loolu bokk ci lañ ko ci ahsant léegi kooku moom itam lu am solo foofu la mooy su duggoon ci jàkka ji taxawal di la ñu taxawal ba imaam ji ne allahu akbar taxawal nag waxuñu ñu tàmbali naan allahu akbar allahu akbar waaye mooy ñu dem ba imaam ji kabbar na kabbaru armal fu mu la fekk rek daggal fu mu la fekk ci biir naafila gi bu fekkoon ngay taaye sax jógal rek dugg ci biir sàppe si noonu bul fa jekki di àggale taaye ji ndaxte fala salaata illa al maktuba fala salaata jooyu yonent bi daf ko dàq dàq gu ma sëkk julli dagg googu nga ko dagg ci loolu teewut yool ba am na insha teewul yoon ba am na déedéet waroo ko dagg suñuy liqaam suñ ko war a dagge mooy su fekkee ne imaam ji dugg na ci kabaru ah, armal ndax foofu la julli e gi tàmbalee julli gi tàmbalee wu ci liqaam waaye mi ngi tàmbalee ci kabaru armal fa li may gis man ta borom xam-xam yi ma ëpp xam-xam gën maa sonn ci gës